ñi mer ba futtu te ku leen attewul xeex bu tàng jépp nana am ci seen diggante ñu am xer wu njëkku laas na àndandoo yar xër wu njëkku journal bi laas nañu waa séddi maa ngi cokkaas waa ni ngi leer kon coowal suuf jógee ko fi ba léegi laas nañu ginnaaw coowal suuf li fi amoon ba tax waa gàddaay waa xaaxun wàccoon ca mbedd ya waa ni ngi leer tamit defati nañ lu ni mel moom kay mer ba futtu lañu def na duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg looloo waral jëwriñ ji ñànk yëf di Abdou Karim Fofana moom mi fa demoon di dox tànki jàmm ne ne dëppoo ci benn kàddu moom du ñàkk ci bile xew-xew waaye ña yewoo ca dëkk ba moom nee nañ du ca dal dañoo mer ba fut ne lii moom na état ñëw wax wala ñu fajal ko suñu bopp ñeneen ñi ko nar a fajal seen bopp te seenu xeex di seen diggam ak état te ku yabuwul deret ju bari nar na cee tuuru ñu amee xët wu njëkku l'observateur yéen leen xët wu njëkku journal bi ñu fekk fa jaaykati jabay sànnaga yi ginnaaw yembu kantin yañ doon defar fële ca marché sànnaga ngelaw gi yor yëf yi fas yéene naa képp kuy lalati ci mbeddi sànnaga gis kenn rek ngelaw gi yor yëf yi nee na ñaari fan laa leen may képp ku xëtt ndigal li nag lu la l'état def rek na la neex waaye commerçant ya yeewoo ca marché bu Sandaga nee nañ du ca dal ñoo mer bu futu lii moom duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg te lii moom seen bakkan lañ ci gar ñi ci gar seen bakkan na nar cee faatu ba jeex ci tàkk ñu amee xët wu njëkku journal yi source a vox populi libération l'observateur ñoom ñëpp ñu amee seen xët wu njëkku yéenekaay ak noonu xalaat ci ñoom ngir sàggane leen ñoo laale ci woppi covid 19 ji a journal bi nañu moom kay ñañu nëbb ca ningu si ne ñooy prisonnières yi ñoo far commencé laale ci woppi covid ko fa indi di seen nosuwaay nekk ca kaso bu Jurbel moo ko fa indi moom sax day jot na ko wàllu ko wàllu toll ci juróom ñaari prisonnière vox populi nangoo wax ci ca moom ne ko bu fa yemoon sax mu neex na dëkk bi moom ay fajkat ci jëmmi boppam sax nag moo fi nekkatul l'hôpital maam Dabakh Malick ba nekk fële fajati waa woon moom xaw ma ñuy fajati a doy waar libération nangoo wax ji ci moom ne ko loolu kay man maa la koy dëggalal libération ne ñu jamono ji may wax ak yow kay am na fanweeri doomu aadama yoo xam ne seeni mbir moom mi ci guddi gu bas tëggul ba tax na sax ñoo ngi fële ca réanimation waaye journal bi yemu ca ndax nee na démb ci guddi rek wopp ji rayati na lu toll ci ci ñeenti bakkani doomu aadama bu ñu ko booleeg lim bi fi nekkoon nag dañuy daal di am lu tollu ci téeméer a fukk ak ñaar ci ay néew l'observateur mel na kuy fil seen gémmiñ naan leen bu leen yàkkamti ndax wopp joojee sax jot nañu cee def lu toll ci juróom fukki milliards xaar ñetti milliards yi moom mën nañ ne sax ca faket yooyee ca la jëm moom kay wopp ci dëgër bopp rek nekkoon ba léegi sax xanaa dem na may laaj rek xaalis bi moom fan la dugg ak kan moo ko gis ba ëllëg ak jàmm